injustice la rek xam nga waruñu woon àgg fii ci Sénégal en 2023 surtout avec le président Macky Sall. Mm-hmm. mais Macky Sall moom fi mu jaar moom ku neen moo waroon a jël injustice di ko teg nit ba mu des moom mais Ousmane Sonko li ñu ko teg mais il faut avoir le courage de le dire injustice la injustice bi daloon Karim Wade.

kenn jiiñu ko ne ko da ngaa jël alalu réew mi. Mhm. dañu ne dañoo njortu ni enrichissement illicite. bon ñu dem fépp fu ñu dem ci CEDEAO la ñu jëkkee Karim Wade gagné ñu dem France Karim Wade gagné ñu dem Allemagne Karim Wade gagné Nations Unies jox euh, comment dire Karim Wade ndam ONU fu Genève fu ñu dem Karim Wade gagné. Mhm. Karim Wade naa perdu ko Sénégal te Sénégal xam nañ ni justice amu fi. Mhm. léegi bi ñu demee effectivement ñu dem ba ci biir loolu nag war nañ cee ñëw je pense que balaa. dinañ donc kon Karim Wade moom. kaawam cas spécial. moom ah. bokkul ak kenn ci cas yi. d'accord parce que moom dañ koo jiiñ dañ ko dañoo njortu ni. mais tey jaww bu ma ñëwoon ne tey sa sa mbubb mi nga sol. Mhm. damaa bëgg nga justifier foo ko jëlee. mais bu ma la ci bëggee créer mën naa la mën naa la cee créer. da nga naa ma tailleur bee moom moom moom moom tey non mais état bu la bëggee daaneel ci enrichissement illicite ah. da lay jaay doole daaneel moo tax ma ne la kaaw Karim mën nañu ko méngale ak kaaw Ousmane Sonko moo ne ma kaawu xaw ñaari nit la en fait ñaari nit waaw léegi ñaari nit lu ci état wuti état kañ la ci dugg ah mais état ni mu ci duggee mais gi dégg nga ay audio des gens qui son au cœur du système de Macky Sall mhm. ñu dugg ci xam nga man dama ni yow mënoo topp nit ki pendant des années ci affaire viol Mhm. ñu ñëw ba ca cappaandaw ga nga koy condamné di ko condamné ci affaire corruption de jeunesse yooyu dama ni caaxaan la Sénégal bu ñu ko bëggee defar nañu bàyyi caaxaan. ah loolu euh, d' naa ak yow ñu bëri d' accord nañ ci ak yow aussi mais aussi euh, l' attitude du camp d' en bon pas pas en face ci yow parce que vous êtes tous dans dans l' opposition euh, maanaam bañ a wuyooti justice bañ ko respecté boobu ba bu tere nga bañ le président Abdoulaye Wade moo inscriroon manifestation ak marche ci constitution bi mhm. mais c' est encadré. donc ay nit mënuñu xëy rek jug na dañuy dem lever ji benn barricade boo xam ne même jàppee ne sax à fond injustice moo moo ko laal bañ jàpp ci seen i ay naataango loolu tamit dem ba assemblée nationale avant-hier on a vu ça démb ngeen bloqué travaux yi est que tamit def ñu benn set infernal boo xam ne bu ñu continuer du baax waaw xam nga ab taal moom bu bu tàkk fu na nga koy uppee parce que nit ñi xam nga loolu tax injustice baaxul mhm. gis nga ab ba nit ñi wóolootuñu justice a fajal seen bopp te bu ñu jéem a fajalee seen bopp l'État va utiliser les moyens de l'État contre ces gens te bu boobaa musiba day am il faut que ñu xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañu Sénégal ñoo ko bokk.